ginaar dina manqué parce que période bi mu tombee la donc tàngoor bi éleveurs yi pour ñu génn ci dina xaw a métti lool donc pour nga génn ci dina laaj ay moyens yu bëri bëri bëri boo xoolee éleveurs yi daanaka seen situation demeewut noonu donc ba ñu mun cee génn à cent pour cent donc boo xoolee bande woo dugal li nga bëri mortalité température bi aussi tàngoor bi ñu am fan yi ëpp na waaw donc boo xoolee côté poussin yi aussi Euh, rupture dafa amoon ci côté poussin yi donc boo xoolee ren quantité bi daan dugg ci poussin dugg donc dañ ko mën a jàngatee mooy ginaar dina manqué lool dina métti ci population bi aliment seer na poussin seer donc boo xoolee tey tey boo ko demee jënd ji Dakar nga transporté ko mu ñëw ba Tamba li may coûter si trop cher donc pour nga élever ba génn si aussi euh, coono bu rëy la coono bu rëy la tey tey tey tey ginaar yi ñuy jël di ko jëli ay Mauritanie ay Mali ay Gambie ci réewu frontières yi nga xam ne ñoo ñu wër ginaar goo xam ne ndawal goo xam ne yow boo ko consommé xamoo lu la ci mën a ci fekk maanaam lor gi la ci mën a ci fekk ndax xamoo ginaar gi niñ ban anam lañ ko toppatooyee man anam lañ ko dépirmer ban anam lañ ko conserver bu mu yegg ci si yow.